mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare tey nag ñu ngi fii ci daare Cheikh Bassirou moom Serigne Abdoul Khader moom Serigne Touba daare jii ñuy waxe sun labraar nga xam ne fii ak Touba war naa toll ci téeméeri kilomètre ak ñeent fukk wala téeméer ak ñeent fukk ak lu teg kon bërëb bu sore la nekk ak Touba sore na lool ak Touba tey nag ñu ñëw fii njabootu sëñ Daaru Xasan Njaay waaye buntu kër sëriñ Cheikh Mariamu Ndiaye te sëriñ Mbacke Mariamu nekk ca bopp ba ñu nekk fii ci daaray Hisnul Labraar daaray Cheikh Bassirou moom sëriñ Abdoul Khadir ngir ñëw ngir déjjiti ëkk yi ngir ruuj bërëb bi ngir seetal ko ci ndigalu Cheikh Bassirou Abdoul Khadir Daaru Ndiaye gépp nag maasoo ñëw ci turu sëriñ Abdoul Khadir waaye ci jëwriñam sëriñ Mbacke Mariamu mi nga xam ne mooy jëwriñu ñu sëriñ Cheikh Mariamu lii nag mooy Daaru Ndiaye nit ñaa ngi nii xëy ngir jëm ca tool yi tey mooy ñetteel bi xëy ndax keroog gaaw lañ fi xëy ñëw. ñu xëy dal ci tool yi liggéey bi nekk ci ku ne xam na tool waaru yaatu la waaye bi ñu xëyee ci dimanche nekk ci ba tey ji ji aldan di ñetteel bi xëy ñu war a xëy dem ci tool yi ngir àggale liggéey bi.

xam li ñu jot a gis nag am nañ yaakaar xel mu dal ci ne liggéey bi yaatu na lool waaye mbooloo mi wane nañ ci pëseef ak njàmbaar ndax ku xam Daaru njaay ak waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoom leen àndal waar wi ñoom ñëpp ñu ngi fi dajee fi te ñaar ñii fu nu dajee day mel ne kon sëñ Tuubaa fa dajee ndax ñoom li ci ñoom sëñ Tuubaa ko def ci ñoom kon day mel ne Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Daaru Assane ñoo tasee fii ci daare Usul Labraar muy daare Cheikh Basiru moom sëñ Abdul Xaadir kon loolu ñu ngi ci am njort ci ne la daa xew rek mooy xew ndax sëñ Touba bi mu nekkee ci waar di liggéeyal boroom subhaanahu wa taala fu mu mas a nekk nekk na fa ak ma Ibrahima Fall nekk fa ak sëñ Daaru Assane loolu it mooy histoire bu répété waat tey jii fii ci Hizbut Abraham di ñaanal Cheikh Bassirou Abdoul Khader nag yàlla yàggal ko te wéral ko te lii day mel ne lépp ab taxawaayam la waaye mi ngi dundal la maamam nekkoon mu Cheikhul Khadim ànd koon ak mag ña ndax loolu rek lay firndeel waaye la woo juróom nekkoon mooy Cheikh Abdoul Khader di ilimaan ëllëg lam nekkoon ak mag ña waaye la sëñ Daaru Assane Ndiaye nekkoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñi ko wutu ñëpp sëñ Bay Falloo mi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci kër sëñ Daaru Asan tey maam ci sëriñ Mbàkke Mareemu mi di ñaan sëñ Mbàkke yàlla yàgg ko te wéral ko bi وقد كنت زانيا يسيرني كالآل والصحب سرمدا ولي خاد سرا غاب عن خيره المحيي يسيرني كالآل والصحب سرمدا غريبا مفهما فارق الرأي يقول لسان الحال لي كن خديم من wala fi dañuy lim ne lëg bu lekkee aloom na ko gërëme coy coy bi mooy mi nga xam ne lii lépp mooma moom la mooy suñu lépp te eh, wax ne eh, ndigal bu jag bu lépp jag bu ndigal yàqu bu ndigal dara du jag kon nanu góorgóorlu baax jëfe ndigal te moytu tere tey dimandiko wéttali ko yàlla tey góorgóorlu tey booloo ni ko sëñ bi bëgg àndandoo nekk benn yal na yàlla dimbali ci booloo gi nga xam ne moom la sëñ Cheikh Mariam mu daan wax noonu àndandoo nekk benn ci la suñu lépp gën a gaaw a jage loolu mooy suñu ndigal nañ ci sax dàkk ñu ci yàlla yi ñu àndal mooy sëñ sëñ Xaadim moom sëñ Cheikh Mariam ak sëñ Black moom sëñ Cheikh bi yaatal liggéey islaam la ndax moom day liggéeykatu islaam day jàmbaar joo xam ne yaatal islaam moo ko tax a jóg moo tax lii lépp am ku ne xam ne Daaru Njaay ni muy doxee mooy lépp lu dikk benn baat lay doon te ndigal lii bi mu dikkee ci Daaru Njaay gépp la maase suñ suñ mbàkkee maanaam ay waajuram ñoo fi nekk waaye teewul ndigal li bi mu dikkee ay waajuram dañoo ñëw woo seenu njaboot ànd kook moom ndax Daaru Njaay noonu lay doxee kenn ku ne lu wacc ci yow wala laal ci laal na ci ñëpp. te ñoom ndigal rek la ñuy dil ndax sëñ Bay Falo danaa wax ne ñun kat ñu ngi mel ne fasu naaru góor saa sun fasu naaru góor saa boo ko noppee jox euh, pepp mu noppee dund nga xam ne day xiiban wala day loof waaye ñun muriti Daaru Njaay yi ñun ndigal mooy sunu dund ndigal moo ñu dundal mooy dund sunu roo kon Daaru Njaay moom ndigal la leen yàgg a xame ci jamonoy sëñ Daaru Asan ba ci sëñ Bay ba ci ki fi mujjee nekk nii muy sëñ Abdul Xaadir di ñaan yàlla yàggal ko te wéral ko ñoom seen bàkk bépp mooy ndigal jëfe ndigal te wattu na ko ay tere الناس والوهم مدينة علم مرتجل منة لنا ñu fii ci daal Isnul Abrar di ñetteel bi xëy ngir fas yéene dem ci waar di ñaan suñu borom subhanahu wa ñu àggale liggéey bi ci jàmm te tas see ngërëmal sëñ Touba ngërëmal sëñ Daaru Assane ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall ànd ko suñu mbokki Baye Fall fii boo fi dikkee day jàpp maanaam waa Kër Sëñ Assan dong fi nekk waaye loolu mooy yoonu mu loolu mooy defar Sëñ Tuubaa fi mu toll mënoo bay Baay Faal mënoo xàmmee waa Kër Sëñ Assan ndax ñoo bokk deret ñoo bokk Sëñ Tuubaa li ñu mën a séddaloo li ñu mën a euh, séddoo te mooy Cheikhuna Ahmad al Khadim kon ku ñëw ci bërëb bi sa xel dana gën a dal sa yaakaar dana gën a dolli ko ci yoonu murit seenu taxawaay ak seenu njàmbaar ak seenu pas-pas day mel ne waxtu na association day gën di dolleeku day gën di yokk lu coow li bëri bëri bëri ak lu jamono yëngu-yëngu saa boo demee ca keppaar yi nga xam ne sëñ Tuubaa moo leen defar moo defar seen maam da ngay gën xam ne liggéey bi sëñ Tuubaa bi dara wàññeeku ci day gën di yokk waxtu na saa su ne kon ñi ngi sant yàlla di ñaan liggéey bi ñu àggale ko ci jàmm tas cee ngërëma sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu من